أعوذ بالله السميع العليم من شر شيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من بعث رحمة وهداية للناس أجمعين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والمسترشدين والمسترشدات برشده إلى يوم الدين mbokk yi tedd yi ñuy déglu ak fu ngeen mën a nekk ñu ngi leen di nuyu ci nuyoo bi gën a tedd muy asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. di leen ziyaara di leen baalu xaq te di leen baal di yàlla mu boole ñu jéggal xam naa ndeysaan bu ko defee rek dañuy dellu siwaat ci cadre rek laayante biir ci suñu qasida maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum radiyallahu taala anhu ويتاهت بنور جمالك الأحلام يا من هو الخلاق والعلام قصيدة بمام شيء أحمد التجاني منو نجوخ الدات اكزاكت بوخم نتي لوكو تاليف واي في الستينات لي سوسانت تي لا تاليف قصيدة بي قصيدة بي منكو تاليف دفكو تي بحر الكامل دخ يالا ak matam ni mu toll nga di ko way dañuy bëgg nga di ko def ci baxarul kaamil comme que sa kilifa la naan la boo ko dee way na ko def ci baxarul kaamil kon nag yàlla kenn waxaalewu ko te koo xam ne nag dafa dafa peeg lu ñuy tudde way ndax rumxul xawaafi laa ne andi matnuhu moom moo tax bu ko situation dabee tamit ba muy way yàlla dina dina ëndaale loolu nga xam ne yàlla moo ko may ba bu koy way da koy defe ci baxarul kaamil sabab bi nag li tax mu way ko li ñu ci mën a indi mooy nit nitu yàlla yi rawatina ñi doon dund ci wàllu tasawuf dafa am fu ñu tegoon seen tànk muy tafakkuru saa xayrun min ibadati sana maanaam dugg ruq mën a kan bàyyi lépp nekk nag ci li yàlla bind di xalaat ci li yàlla bind ci géej yeeg ci asamaan yeeg ak lépp luy dox ci kaw suuf ndax lépp lu dul yàlla mbindeef la ñuy xalaat nag ci mbindeef yi ndax yàlla moo ko wax wa yatafakkaruuna fi xalqi samaawaati wal ard ki nekk di xalaat nag ci as samaawaati wal ard nekk ci nekk ci nekk ci ba yàgg ca moom mooy waral bis bu pare rek ne rabbana ma xalaqta hada batilan تدفع أم لين أن تبي صلى الله عليه وسلم وهن تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله بعندك دخلات نعند دخلات تلي على بند وينك بدن خلات تجمي على ما تحمد تاشين بودني تنيك نك تنيك تنيك تنيك دم بقلم من قلم نادي waye xamna ne du man dong ndax borom xel yep tamit gelam حق نتاهت بنور جمالك الأحلام يا من هو الخلاق والعلام نتاهت قلمنا الأحلام برم خل يري ذو العقول الراجحة برم خل يري قلمنا بنور جمالك كليرو التربية بيو يالله ci leeru sa taar bi ci la boroom xel yépp gëlëmee ndax dafa am nuuru kamal am nuuru jamaal kamaaliye yàlla ak jamaaliye yàlla pour ñun ñu mën a am accès ci moom faaw ñu jaare ci jamaaliye bi ndax kamaaliye bi xaqiqa la te comme que yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dan moom lan lay wax naan la walaysa yudriku fi dunya xaqiqatahu qawmun niyaamun tasallaw anhu bil xulumi te yonente bi xaqiiqaam jot ci sax yombul kon xaqiiqa yàlla rawatina moo tax jamaaliya bi ci la ñu mën a jaar pour mën a am accès ci moom moo tax mu ne bi nuuri jamaali te jaaraloo ko ci nuuru kamaali kon borom xel yu rëy yëpp gëlëm nan ci sa leeru taar bi yow yàlla yaa man huwa alxallaaqu wal allaamu mu jëfandikoo ñaari ñaari baat mu alxallaaq wal allaam def ko ci siiqa mubaalaga ci wasnu faal ndax alxaaliq ismu fail la alaalim ismu fail la waaye nag mu mu mubaalaga ko nag nga xam ne yii moo ëpp doole ndax yàlla ci ay turam am na yoo xam ne dina ci abale nis bi yàlla waaye nag xaqiqa bi moo ko moom moo tax mu ne ko yow mi nga xam ne alxalaaqu yaa bind yaa créé loo xam ne nit tek na ci bët ak loo xam ne tamit teguñu ci bët al allaamu yow mi nga xam ne yaa xam lépp peg lépp te ku xam yaa ko xamal ndax nit dinañu ko woowee aalim dinañu ko woowee aalim nit tamit dina fi fekk loo xam ne dina ci am yu mu jël composé ba am lu mu créer man yàlla man nako abal nisbiye ci tour bu ñu wax xaaliq mais bu dé khalaq ak alim ak allam lool bu ñu ko waxé rek xel yëpp ci yàlla lay jëm motax yàlla ne won yonent bi sa nuqri'uka fala tansa ndax yàlla lu mu xamal nit sax bis bu bëggé nit ki fàtte ko da koy fàtte kon mo xam lépp te ku xam tamit mo la xamal kon nga gis mu jëfëndiko tawhid ndax fil bidaya yatakallamu shaykh ani tawhid commencement bi kilifa gi da don da don wax ci cadre wétal yàlla muneko ne ko wa aba siwaaka alxaqu min bi haqqihim wa atat tuayidu mulkaka al ayaamu mu wa aba wa aba bagnna bagnna bañ nak madin la verbe passé la wa aba bañ na lan mo bañ alxaqu dëgg moo bañ si waa ka and ak kenen kudul yow min di haqqihim ci ña nga xam ne wote ne ñoy borom deug am deug ci bopam mom mo bañ ne do and ak kenen kudul yow ci ña nga xam ne ñooy woote nga wala fi ñu naan deug ñatt la sa deug sama deug ak sa deug buñ bëggee nekk ci dëgg da ngay bàyyi sa dëgg ma bàyyi sama dëgg ñu fekki dëgg te maam cheikh nee na nag bi ma bàyyee sama dëgg yow tamit nga bàyyi sa dëgg ñu fekki dëgg dëgg fekki na yàlla ndax allahu huwa alxaq walxaq huwa allah moom moo tax mu ne dëgg dafa bañ a ànd ak keneen ku dul yow wa atat te dikk na al ayyaamu bés yi tu ay yidu di confirmer mulkaka sa nguur yow yàlla nguur gi nga gi nga moom bés bu ñu xëyee rek bés bu ñu xëyee rek at mu jeex ba meneen ñëw yow sa nguur dafay gën a bees ndax xam nga dañuy wax ne aljadi yi day ne guddeeg bëccëg lu ñu fi fekk ràppal ko ban naan amoon na fi waaye nguurug yàlla chaque jour day gën a bees chaque jour nga dégg ko naan yàlla rek a mën de yàlla rey sa jëkkër wala sa jabar wala rey ku la gën a jege ki nga gën a sopp ngeen li de yàlla rek ko sañ yàlla rek kay buur kon yow nguuru yàlla chaque jour rek mi ngi gën a bees wa atat tu ayidu mulkakal ayaamu kon bés yi chaque jour dañuy dañuy gën a confirmer sa nguur yow yàlla waaye duñu ko rappal mukk ndax du ràpp nag mu ne ko fala anta rab waaxidun bi sifaatihi wa fiaalihi bi shahaadatin tuutaamu mu ne ko fala anta yow yàlla fala anta yow yàlla dafa jàkkaaroo moom di wax ak moom rabbun waaxidun yow daal benn buur nga rek benn buur nga bi sifaatihi ci ay melokaanam fala anta yow rabbun waaxidun benn buur nga بفعاله تأي جفم نح يالا سنو بورم أي ملوكا نم كن فيكو كتا نح أمنا نو يالا مل بس بوك ملالي نترك يو يانغي خاص نتكي تفك لولا بوك ملالي يالا مونة كتاك جي موم اكزامبل المتكبر المتكبر بوك وخي نترك خاص نغوك te boko waxe yalla tag nga ko al jabbar boko waxe nit khas nga ko te boko waxe yalla tag nga ko mom motax say melokan kenn fekkula ci mune lol nak tuatamu mune luñu luñu tan la luñu tamu la bi shahadatin ci ci sédé bu wér nam ñëpp ko sédé ñëpp ko làmb daj ko say melokan ak say jëf kenn fekku ci lolou mom dañ ci tek suñu loxo daj ko ci يا yàlla wala anta xayru mukawinin wa muqaddirin wa muhayminin tajri lahu mu ne ko walaante yow yàlla kaw wi nii képp kuy composé mu ne yaa ko dàq composé ndax ni nga ni nga formé sa sa nit ñi sa mbindéef yi wa muqaddirin nga nattale ko ba dara ëppul dara yéesul ba pare wa muhayminin ba nga defee takk wii nag taqdir nag nekk na superviseur bi nag toog di superviser lépp nga xam ne tajir yi mi ngi mi ngi daw al ahkaamu àtte yëpp lahu ñel ko yow yàlla yaa composé yaa nattale ba pare nekk di nag muhaymin di contrôler lépp nga xam ne àtte yëpp mu ngi ci sa kanam nga xam ne àtte yëpp ñeel na la yow yàlla suñu borom kon xam naa dañuy taxawani foofu dañuy bañ muy gudd ba ëpp ndax dafa xawan a naqari dégg ndax bu fekkee kiy wax déggul moom pour kiy déglu mën a dégg dafay dafay jafe waaye bu ñu ko dégloo rek du ñàkk incha allah dina ci dinañ ñu ci am yeneen i déggin bu baax a baax ñu teg foofu rek suñu baaraam ba beneen jotaay ñu mën a ñëwaat ak yéen incha allah beneen yoon. ñu wax ne rek ndongo la loo xam ne li muy wax xamu ko waaye nag dafay jàng ba léegi ñu ngi jégulaat beneen yoon wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu